comme ni ngeen ko xamee ñu ngi ci période examen yi ci fànn bu nekk ñu terminé bac bi ñu ngi def deuxième tour ñuy def BFEM bi ñu ngi ci xëy na suba la ñuy terminé moo tax également tourisme organiser également ay examen professionnel ci secteur bi dafa am école nationale mais dafa am ay école privée yu fi nekk moo tax chaque année ministère bi day organiser examen national bu ñuy wax examen d'état pour sanctionner études yi mais également permettre ñi nga xam ne ñooy def examen bi muy góor ak jigéen ñu mën a am seen diplôme mu mën leen a jëriñ ci seen carrière professionnelle loolu boo amee day jaadu ministère bi nga xam ne moom moo moom moo ëmb loolu ñëw nemeeku examen yooyu nu muy déroulé ma si remercier président du jury remercier chef de centre yi ak examinateur yi dem nañ ci saal yi gis nañ ne examen bi mu ngi jaar yoon ñu ngi si remercier bu baax également directeur école yi ci nga xam ne examen bi noonu lay moom lay bindoo loolu nag day wone ne bu ñu àndee ensemble on peut régler beaucoup de choses Dieu merci amul problème majeur bu fi nekk à part ñuy jàmbat problème mu tàngoor bi mais si nawet lañ nekk loolu yàqu si dara ñu ngi wax examen yi épreuve yi dafa xaw a saf mais loolu moo tax mu nekk examen d'état du examen école examen d'état la mais comme am na ñu si teel a pare am nañ njort ne te ñu ngi leen koy ñaanal ñoom mu nekk seen seen seen njiitlaay te ñu réussir examen bi parce que loolu lañ si séentu bu ñuy organiser examen séentu wuñ si mu am taux check taux de réussite bu am solo lañ si séentu parce que nag ñi koy ñi koy def ay doomu dëkk bi la ñi koy def dañu mérité am seen diplôme pour mën a dem liggéey te fi ñu war a dem si secteur bi dañ leen fay xaar parce que am na ay place yu fa nekk moo tax ñu ngi leen di encourager bu baax di leen ñaanal ndam ci examen bi si nekk di ko wax nag si turu ministre di tourisme et des loisirs nga xam ne yoon moom la teg charte bi pour mu organiser examen bi nii fekk naa fi ay enseignants dévoués de métier ñu ngi koy organiser ma ci rafetlu madame njaay bi nga xam ne mooy directrice école bi di nuyu ki nga xam ne mooy secrétaire généralu association école privée yi di nuyu également ki nga xam ne mooy président des jurys bi te nekk inspecteur des affaires administratives et financières fii si ministère tourisme di ko bu baax si taxawaay bi. examen yi nag euh, ay examen d'état la pour ñetti filière donc BTS tourisme BTS gestion hôtelière ak BEP BEP bi ñaari BEP la BEP restauration ak BEP réception léegi ba lu ñu constaté. at yi yëpp mooy élèves yi dañuy gën a bari dañuy gën a bari daaw ñu ngi woon ay quatre cent ren dem nañ ba quatre cent cinquante ak lu teg léegi nag euh, tourisme ñoom dañ leen di préparer pour métier compagnie aérienne yi pour métier agent de voyage ak métier événementiel euh, gestion hôtelière ñoom dañuy def gestion hôtelière euh, vraiment ci ci ci fànn yëpp. dañuy def euh, réception dañuy def euh, comptabilité dañuy def économie dañuy def lu ñuy wax gouvernance donc ñoom ci métiers yooyu lañ leen di former euh, BEP réception bi ñoom tout ce qui est accueil information et comptabilité de base dans les hôtels ñoom ci lañ leen di former BEP restauration bi ñoom nag dañ leen di tàggat ci ay métiers cuisine togg ak gestion de salle parce que ñu bëri du ñu ràññee. cuisine ak salle bokkuñu même formation bi la mais ay métiers yu bokkul la donc ñi nekk salle donte dañuy dañuy mun a togg mais ñoom ñooy accueillir clients yi ñoo leen di dalal ñooy gérer salle bi ñooy gérer commande yi donc loolu mooy ñoom seen particularité. particularité bi de varier ça dépend des candidats ça dépend des épreuves donc euh, et des évaluations donc loolu mooy déterminer euh, taux d'admissibilité bi amul a priori daal waaw yenn saa yi dina am ay absence ce matin am nañ benn absent parce que dafa feebar donc mais absence bu nekk dañ koy justifier bu dee feebar la par un certificat médical bu dee leneen la tamit ñu justifier ko voilà merci.